jërë ngeen jëf mbokki internet yi topp tey bàyyi xel Dakar live TV dal leen ak jàmm ci xibaar ñu ñëw ak yéen ci baatu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun bakkan bu ñam dund ñam dee ki fi bàyyeeku wuy ji boromam mu di Gaston Mbengue di promoteur bu askanu Sénégal ràññee lool te itam yàgg koo bàyyi xel gannaaw waar wi nga xam ne yàgg na koo bay ci ahlu làmb moom nag gannaaw sukkali bi nga xam ne rek daan na ko def réew mi bokk ca rek alalam jamu daan tuur ci làmb ngir rek jeunesse bi am ci lu ñu jàpp ba mu mu yàmb mën a yóbbu ci seeni kër moom Gaston Mbengue nag euh, moo daal ji wuy ji boromam euh, ni ki euh, tey ji gannaaw nag feebar bu yàgg bu ko tëraloon tax sax ñu yóbboon ko ci diwaanu bitim réew ba sax doon ko fa fàcc bu yàggul nag daal dina dikk fii ci diwaanu senegal moom Gaston Mbengue nag daal dina wuy ji boromam équipe bu Dakar Live TV yëpp ña ngay àndandoo ak ay mbokkam te itam ànd ak askanu Sénégal te koy jaale képp ku ko doon bàyyi xel moom Gaston Mbengue yàlla suñu borom yërëm ko te xaaree ko àjjana firdawsi eh, équipe bi yëpp tey ànd ak naxar bi ay mbokkam leen Sénégal dafa am ñuy yéenante musiba te loolu baaxul ci ñun yàlla noppi na même suñ ma jàppoon kaso bàmmeele jombul ngeen mais nag damaa def lu may jàppe lu dul ànd ak président de la république xam ne moo leen tabaxal arène nationale di jàpp ci làmb ji loolu ku mu ku mu metti danaa gëmul yàlla il faut que ñu nangu mu ni yàlla Sénégal làmb ji ay borom non làmb ji waa CNG ñooy borom ñu ngi nii toog ak ñun borom te mi ngi jàpp mi ngi jàpp ci ji te voilà te am na leneen lu muy indi ci làmb ji donc ñun ñëpp ay sénégalais lañu bu nu tàngal bu nu tàngal leen euh, laabal xol yi ñun ñëpp ñu nekk ci jàmm làmb ji nekk